asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki lislaam bi ñu ngi leen di nuyu ci kàddu Baay Cheikh Thiénaba Sëriñ Assane Seck ñi ngi nuyu kilifa yépp di dellu di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna di dellu di wax ni wa ma muhammadun illa rasulun xad xalat min qablihi rusul afa imaata aw qutila anqalabtum ala anqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a sëriñ Canaba sëriñ Xasan Seck mi ngi yëgal mbokki jullit yépp ni sëriñ Canaba sëriñ Abdourahim Seck macha allahu yàlla jëfandikoo na ci moom coobareem yàlla dogal na ni génn na àddina tey jii nii ñi ngi wax ñi ngi ñaan fu taaliba nekk fu jullit nekk man ngaa toog déglu njaboot gi incha allah ginnaaw yàlla dafa dogal ni ci biti la ko defee bu ñëwee rek danañ joxewaat information pour ku bëgg a ñëw rek teewe si incha allah nga teew loolu mooy kàddu yi nga xam ñu ngi ko doon yëkkati ci ndigalal kilifa yi fu jullit nekk nga jàngal ko fatihatul kitab fukki lixlaas yi ak benn alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokku jullit yi mbokku taalibe